وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نجلد ñu ngi leen di len balu ak, bu baax di len bal ak di contane si and bi ñi and ak yeen sa su ne ci émission yi nga ñi ngi koy def di ñaanal ñepp yalla yalla fay ñu yu fay len ko may ñu dégg ak top. di len jaajeufal bu baax ci top bi nga xam mom ngeen di top émission yi ñi nekk ci suñu groupe WhatsApp yi ñi nekk ci Facebook bi ak ñi nekk ci YouTube bi ñu leen di jëfal di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla fay leen gën ji fay di wax ni gis nañ seeni contribution ak ñaan yi yàlla nañ ko yàlla boole yàlla na yàlla nangu ñaan yi nga xam ne moom ngeen ñuy ñaanal di kontaan ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci dars yi comme niñ ko xamee ñu ak yéen te dañuy commencé waat suñu beneen émission bu bees boo xam ne ñu ngi ko tuddee xayaatu saxaabiyaat maanaam dund sahaba yu jigen yi andon ak yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam ngeen ni ñun dañu wara am ay royukaay yoo xam ne dañ leen di roy te xam ngeen ni tay ji ñi ngi roy star yi di roy jeekatu film yi di roy ñi nga xam ñoy fecc kat yi ñu bal ma di way ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te fekk ñun en tant que julit am nañ ñoo xam ne ñooy suñu royuwaay ñoom lañu war roy Lol motax ñu indil leen émission bu bees bi bëgg leen ci indil dund bi nga xamni mom la saxaabiyaat yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dunde insha allah ñu ci jital ñi nga xamni ñoy soxna soxnaa yonent sallallahu alayhi wa sallam ñom ñi nga xamni ne ñoo àndoon ak moom ci biir kër gi xamoon ni sallallahu alayhi wa sallam daan dunde waye tamit wax yu daan wacc di jógee ci kaw asman fekk leen ci biir kër gi ñu xol ñom nan lañ nan lañ ak nañ lañ nekk woon ak sang bi sallallahu alayhi wa sallam soxna bi nga xam ne moom lañ siy njëkk a indi tey wala soxnaam yi ñoom ñooy suñu yaay Khadija bintu Xuwaylid radiyallahu anha suñu yaay Sawda bintu Zamaa suñu yaay aisha bintu abbakr Sadiq suñu yaay Xafsa bintu Amar ibnul Xataab suñu yaay Zeynab bintu Xuzeyma bintu Xaaris ak suñu yaay Umu Salama Hind bintu abi umayya ak suñu yaay suñu yaay zeynab bint jahsh ak suñu yaay juwayriya bintul xaaris ak suñu yaay umu habiba ramla bint abi sufyaan ak suñu yaay safiya bint huyay ibnu axtab ak suñu yaay maymuna bintul xaaris alhilaaliya tey nag suñu premier numéro ci waxtaan bi ñu ngi ko bëgg a indi si dund suñu yaay xadija radiallahu anha suñu yaay jooju nga xam ni mooy nekkoon moo nekkoon aaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi takkaatul beneen soxna ci giiru dundu yaay Xadiija ba mu génn àdduna soxna si nga xam ne mooy soxna si njëkk a gëm islaam loolu dayoon ko ndam waaye mooy soxna si nga xamante ni mooy soxna su laab si comme niñ ko daan oowe suñu bëggee xam suñu yaay Xadiija bintu Xuwaylid moom mooy kan kooku mooy Xadiija doomu Xuwaylid doomu asad doomu abdul uzza doomu qusay mu tassé ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ñentelu mamam bi ñuy wax qusay kon mom mbokk la won ci yenenbi ndax ño bokk mam ndax xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy muhammad ibnu abdullah ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu munaf ibnu qusay kon qusay momu moy mamu khadija di mamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ño bokk mam waaye mu nekkoon tamit jega jegañaale yonent bi sallallahu alayhi ci côté yaayam ndax uh, yaayam moom it waa Xuraysh la woon moom Xadija radiyallahu anha muy taseeg yonent bi sallallahu alayhi ñuy wax lu ay lu ay maam la si yaay waaye maam la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon Xadija moom mooy ki nga xamante ni moo gënoon a jege yonent bi sallallahu alayhi ci askan ci ay soxnaam si yeneen soxnaam yi Xadija radiallahu anha moy ki nga xamanteni tamit mo jural yonent bi salallahu alayhi wa sallam jabot man nañ ni mom la yonent bi salallahu alayhi wa sallam jabotal bu ñuy waxtaan ci khadija nak dañuy wax ay wax yu bari ci mom ci ñeek moy terang bi nga xamanteni mom la amone ak place bi nga amone bi mu amone ci quraish ak xel bi nga xamanteni mom la amone xelam nga xam dañ daan wax ni buñ daan xool ci jamonoom bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ne ñoo ëppoon xel ci waa Quraysh mu àndoon ak muus nekkoon jigéen joo xam ne ju muus la waaye àndoon ak li nga xam ne moom mooy imaan dafa amoon dafa nekkoon jigéen joo xam ne ku amoon gëm-gëm la melokaan yëpp dafay dajee ci yaay Xadija radiyallahu anha waaye mu nekkoon tamit ku taaru lool bu fekkee dañuy wax taar rek ku amoon taar la ku rafetoon la waaye tamit taar boobu daf ko boole woon ak yeewu ndax xam ngeen jamono ji ñu toll léegi jigéen am na yenn rafetaay yu muy rafet rek daf koy boole ñàkk muus yaakaar ni bu asamaan si doon wàcc mu yëkkati ko wala mu yaakaar ni moom mel na nu kenn melul ba mu indil ko ñàkk muus ba mu nekk koo xam ne ku ñàkk faydale lay doon ci boppam waaye moom taar bi daf ko boole woon ak yeewu waaye boole ko ak muus mu nekkoon jigéen joo xamante ni mën nañ ni ku raaroon la ci jamonoom ndax xam ngeen ni jamono ju njëkk ji avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi di ko yónni booba temps dafa nekkoon temps boo xamante ni pour nga gis ku am jikko yu rafet dafa jafe dafa raar mais suñu yaay Xadija radiyallahu anha bokkoon ci ñi amoon jikko yu rafet yu raar yooyu ci waaye mu bokkoon ci ñi gënoon tamit amoon alal la ku bëri woon alal si jamonoom la woon kon li mu boole mën nañ ni dafa boole woon làmboo jikko yu bari boole taar boole yeewu boole am xel boole kook am alal muy ñeenti mbir yi nga xam ne moom la ñu taamu ci soxna comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi waxee boole kook juddu boo xamante ne nii bu màgg la ndax fu mu juddoo la woon ci waa Quraysh kon bu ñu li ñuy wan ni moom ku amoon xel la te nekkoon ci diine mooy bi ñuy yoni yonent sallallahu alayhi wasallam yonent mi ngi am ñeen fukki at te bobu suñu yaay Khadija bobu mi ngi nekk ci juroom fukki atam ak juroom te neenañu ci histoire musta si jotal xiram te xam ngeen ni màkk booba xiram saaro na fa mbonte bari won na fa yu baree baree bare waye mom bokku na ci ñi raar ñi nga xam ni seen xel mayu leen won wala nanguwuñu won di su jotal xiram bo xam ni nit ki moko yett ak ay loxom diko jaamu wala mu ko def mu diko defar ak ay bonbon wala yu mel ndax moom dafa desoon ci diine ibrahim muy tawxid bi nga xamanteni ni moo war képp kuy jullit kon lii dafa nekk ay jikko yoo xam ne xëy na yàlla moo ko defoon ci moom pour préparer ko ki nga xam ne mooy sang bi salallahu alayhi wa sallam ndax ki mu war a àndal war na nekk koo xamanteni ni ku baax lay doon te ku ñuy tànn lay doon mu boo tombeek yenent bi salallahu alayhi wa sallam si jamono jooju ñëpp xam nañ ne moom tamit bokkoon na si góor ñi nga xam ne dañoo amoon jikko yu raar yooyu ci Xuraysh ndax booba Xuraysh li ñu xamoon mooy sàcc alalu jàmbur këf alalu jàmbur agressé comme ni ñu koy defee suñu jamono ji jigéen ñi dañuy simmeeku di sol yu gàtt di yuuxu ci kaw di def lu nekk di si jootal di jaamu ay xëram ku leen dénk alal ñu lekk ko ku leen ku leen romb ñu tooñ ko mais yonent bi sallallahu alayhi moom tamit bokkoon na si ñi nga xamante ni si benn benn yu raaroon la si am jikko yoo xam ne jikko yu rafet la kon nga gis ne yenen tibe ak khadija kon ñom bokkon nañu ñom ñaar ñëpp ci ñu amon jikko yu rafet yoy khadija radiallahu anha ta bobu nga xamni jikko yep yàqu na teewul ñom ñoom arab yi si boppam ñu ko daan tuddé ak tahira ku laab ki ku laab ki lañ ko daan tuddé ndax sel gi mu sel yiw gi nga xamanteni mom la yiwon ak mbax gi nga xamanteni mom la baxon ndax àdduna lu mu yàqu yàqu yàqu nit ku fa nek ta bax rek nit ñi ak lu muntu mel ak lu ñu bon bon dañ leen nangul sa mbax googu nga xamni mom ngay bax kon bokkoon na ci jigéen ñooñu nga xamante ne ni ñu amoon solo lañ ci dundam xadija radiallahu anha kon ngeen gis ni moom ku baax la waaye tamit yàlla tombale ko doon ko dencal góor goo xamante ne nii góor gu baax la xadija avant yent bi sallallahu alayhi amoon na ñaari borom kër yoo xamante ni ñoom la nekkaloon ñaari borom kër yooyu nga xam ne bi ñu jugee foofu ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam door a denc comme niñ ko waxee alal ji mu amoon dafa nekkoon koo xam ne commerçante la woon bu mag moom yaay Xadija radiyallahu anha waaye danaan jël li nga xamante ni moom mooy alalam di ko jox ñi nga xam ne amuñu jeunes yi ñuy liggéey kon gis ni mu amee woon njëriñ ci société bi ni mu amee woon njëriñ ci dundam toogul woon rek na jigéen laa yàccaaral mais dafa daan liggéey am alalam di woo ay xale yu góor di leen liggéeyloo di leen fay ci alalam jooju benn bis mu bugg a yónnee Cham ndax ñoom dañ daan dem Cham fa lañ daan jaaye muy xalaat ne man de xaw ma kan laa war a yónni bi yoon pour mu dem jaayal ma sama marchandise bi ndax dëkk bi yàqu na te nit ñi presque jubatuñu mandootuñu bu mu waxee loolu am ku ko tegtal daan ni ko am na benn xale bu góor bu nekk ci dëkk bi muy Muhammad ibnu Abdallah moom day ku jub la ku maandu la ku ñeme dëgg la waaye tamit ku mën a sàmm kóllëre la kooku de boo ko joxoon sa alal dina la ko jaayal te dina la delloo sa xaalis ba mu mat soxlawul wax soxlawul ci dara bi nga xamante ne loolu am na xadija radiallahu anha daal di woo woolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy gaaral marchandise pour mu jaayal la ko Sham bi mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu ndax xam ngeen ni moom nit la woon koo xam ne bëggul woon di dund si ah, ñaqu jàmbur dafa nekkoon koo xam ne ñafekat la woon comme niñ koy waxee liggéeykat la woon ku bëggoon liggéey la sallallahu alayhi wa sallam waaye rek dafa nekkoon koo xamante ni amul woon dañu dafa ñàkkoon ndax xam ngeen daf daan sàmm ay nag ay xar léegi nag sàmm boo xamante ne yaa ngi sàmm boo gisee ku la jox alal na la liggéeyal da ngay kontaan ci loolu yént bi sallallahu alayhi daal di ànd ak Khadija radiallahu anha ci proposition boobu nga xam ne jox na ko muy di ko jaayal ci alalam jooju bi nga xamante ni loolu am na Khadija radiallahu anha daal di am benn xale xaleem bo xamni mi ngi nekkon ci kër gi benn jaamam bo xamanteni mo sara, ci kër gi ñukay wax maysara mu ne yow maysara yow muhammad ibnu Abdullah, nga and ak mom ngeen dem sham, ngeen jaayelu ma sama marchandise bi nek fofu la yalla namé won khadija ay kemtan yo xamni yu reey la suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam muy premier genn jaayam mom yenente bi xamul won jaay ak jënd parce que daawu ko def sàmm la woon waaye ñu ànd déglu na nga nan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayee marchandise boobu ak kéemtaan yi nga xam ne moom la àndaloon foofu maysara di ñu nettali mu ne bi ma ànd ak yonent bi sallallahu dem Sham ñu ne mu ne ñu ngi wàcc Sham digg naaj bu tàng jër mu ne waaye suñu àndee suñu àndee di dem naaj bi du mu tàngee noonu da ngay gis dafa mel ni dafa am benn niir buy jógee ci kaw asamaan si di niral di keral yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci naaj bu tang bi mune bi lolu amé ñu sétlu ko yonent bi ci yermandem ci mbaxam mune maysara nañ changer dañu ko fété ma côté bi ndax yow tamit euh, nir bi mune ñew ci yow mu keral la ndax naaj bi dafa tang maysara mu bi ci changer place ñom ñaar nir bi daal di wat fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkon diko keral ndax bañ naaj bi lak ko sallallahu alayhi wasallam biñu démé ba yegg ba tek sen bagage di jaay mu gis benn taatu garab boo xam ne bu gàtt la bu am ker ker gi sax taxul mu bari noonu mu daal di toog moom yonent bi sallallahu alayhi ci taatu garab gi bi loolu amee fekk ndekete am na ku koy gis benn raahib raahib buñ ko waxee ci mooy ñi nga xam ne ñoo fa desoon di jaamu yàlla ci jamono jooju ñoom ñooy ñex fekke woon téere yi maam yi démb maanaam téere yi nga xam ne ñoo njëkkoon a wàcc ci kaw asamaan ay zabur tawraat injil ñoom ñoo ko daan garde fekke téré yooyu mu may sara mu ne ko xalé bi ngeen andal mu ñoo tok ci garab gi kan la mu ne ko ki benn jirim la rek bu nekk ci dëkk ba bu ñuy wax Muhammad ibnu Abdullah, mu ne ko waaw ki kay bayam dundul mu ne ko bayam dundul yaayam dundul mu ne ko legi nak mom lan lay def fi mu ne ko dafa am benn jigen bu nekk ci dëkk ba muy khadija moo ñu jox pour mu ñëw jaayal ko mu ne ko garab gii de kenn mësu fee toog loolu nekk yenent kon mbokk yi bu bëggee xam li nga xam ne moo ci tegu dañ leen di joxaat digg daje si suñu beneen numéro si dund suñu yaay laa radiyallahu anha ñu eggaleel leen ko ni Khadija ni yenent bi mujjee ak njaay mi ak ba mu delloo ci Khadija lan la yóbbu ci bénéfice kon ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun di ñu topp ci suñu émission yi di jaajëfal suñu caméraman yi nga xam ni ñoom feeñu ñu ngi ci ginnaaw di def liggéey bu am solo yàlla leen yàlla fay yàlla jàppale leen di leen wax ni ñu ngi ñaanaat ngeen jàpp ci comme ni nga xamante ni am na ñu si jot a jàpp ku mel ni soxna Zeyna Fall nga xam ne léegi moo ñuy jëndal yére yi ñuy sol yàlla na yàlla fay ak ki nga xamante ni mooy Malibu Couture ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yeneen sponsor yi ñoo jàpp si bu baax ndax liggéey islaam la te xam ngeen ni dañoo bëgg mu jëm ci kanam kon yi ñëpp ñu ngi leen di tàllal suñuy loxo di leen joxaat euh, rendez-vous beneen yoon incha allah ci suñu ñaareelu numéro ci dunduk suñu yaay Khadija radiyallahu anha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزدان بالتجويد بيع الكتاب تجري بنور في الحياة جديد وقفت حروفي وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيد